séparation bi kan moo ko posé. acte de séparation bi mais kan mooy jël décret. non je veux dire euh, si politique sa sa lëkkaloo ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk da nga ne gis nga ne fi ñu jëm du du fu baax. Euh, ñaari ñaari ñaari fànn la ñu mhm. ci wàllu administration. un directeur dafa am bu koy nommé ñu koy préparé. ñi koy préparé c'est la hiérarchie directe bu nekkee yaa ngi ci. direction général directeur général moo koy préparé. Mhm. ànd ceeg DRH bi proposé ko ministre bi. ministre aussi avalisé proposition bi yóbbu ko ci président. donc c' est une chaîne de responsabilité. Mhm. mais li ci gën am solo euh, man toog naa fan yële benn bés kilifa sat te mun naa ko tudd sax kilifa dine mhm. mu nekk lu rëy ci man loo xam ne euh, sama géru dund musuma ko xalaat. ñu waxtaanee pare vraiment ci njëkk ñaanal ma dama ah dafa la bëgg a baalu si ak ma kan la mu ne kilifa bi nga xamee ne nekkoon ngeen ministre des finances ma ne ko ah, mais baalu ak ci la mu hmm. parce que dafa gis ne daf la tooñ ba ko ah man di wax dëgg yàlla jàpp ne nit tooñ na ma lu am yàlla la yàlla mooy jaarale ay décision ci nit mais nag bu nekkee dafa bëgg a ak ci lu mu def ci lu ma yëgul baal naa ko ak ci xol bu sedd guy bu nekkee dafa bëgg a baalu ak aussi ndax dafa jël loo xam ne yaakaar na ne lii baaxul ci ci ci askan bi wala ci moom baal naa ko ak waaye jéggal naa ko mu déplacé wu. Hmm. ne daf may baalu ak. Euh, yow kilifa diine nga. jéggal nga ko te xamoo la def xamoo kan la kilifa diine nga euh, yàlla daf la may xam-xam may la daraja am fu la teg. Hmm. jégal bi teg naa ko ci sa loxo nga jégal ko te yàlla tax mais du tere